moo ci nekk man nag ma bëgg bëgg leeral euh, vraiment président Diomaye Faye ak premier ministre Ousmane Sonko ñu génn ci système bi yàq Sénégal. ndax système bi yàq Sénégal bii. mooy patronat système patronat bi. ñoom ñoo yàq Sénégal ñoo et c'est pas mal xam nga lu tax. c'est grave c'est très <laughs> grave. Euh, c'est très moo ko yàq xam nga lu tax. Ah. patronat dafa war a créer emploi patronat dafa war di wàcc ci terrain bi ci biir Sénégal fond fond de Sénégal mais patronat du nekk plateau wala mu nekk benn rox patronat. ils sont responsables de toute ça xale yi dem ci géej géej yëpp parce que dafa bari ay fonds yoo xam ne nii ñoom ñoo ko jël di ko détourner di ko lekk daf ma metti hmm? li may wax dafa leer dama koy wax chambre de commerce de Dakar soo ko waxee mu ne am na 3 milliards de budget mais fan la ko jëlee port Dakar pont bascule bu fa romb ñu fayu la paiement au lieu que ñu jël ko investir ko pour la promotion des petites et moyennes entreprises pour la formation ñu jël ko di ko fonctionner dara investissement 3 milliards de budget 2 milliards cent de fonctionnement nañ ko indi prouvé ça veut dire c'est comme si aujourd'hui xam nga les fonctionnaires sax man nga ne ils travaillent pour l'État on leur paye mais les chambres de commerce lu tax mu nekk c'est des missions gratuites pour défendre et pour la promotion de votre activité mais dafa am ñoo xam ne nii dañoo dem fexe ba jot ci toog di ko dunde te duñ fa jógee nag yat ak buum rek luñ fay jële dégg nga benn mooy poor nga dem COSEC COSEC boo demee zéro quarante pour cent la ñuy fay quarante et un milliards la douze administrateurs koy gérer huit yi secteur privé ci la ñuy tukki ci la ñuy fay seen salaire ci la ñuy def leen neex et li ci gën a garaaw mooy ça passe su doon fonds la yu ñuy jël yóbbu ko assemblée nationale ñu voté ko jox leen ko mais douane da koy tipp directement dugal ko seen compte nee nañ nag am naa lu ci état bi jël waaye li dekk ci tax yi te loolu pour ñu war koo mën a def dafa tudd conseil sénégalais des chargeurs xam nga lu tax ñu créé ko mooy dañ ne chargeurs yi dañu war a am benn conseil boo xam ne ni li mu war a liggéey mooy genre patronat des chargeurs pour mu limiter les taux de frais parce que dañu xam ne produit léeg-léeg fret bi ak manœuvre am mën na ëpp doole prix bi tey nañ jàppale ku ku ku dund bi bari na ci loo xam ne ni transport logistique yi moo gën a soor je donne exemple rek conteneur ci biir port bi nga def débarquement fay sa transport génne ko ça te coûte moyennement un million xam nga ñaata la Maroc deux cent mille te duggul ci keesu état ay arrêté la ñuy dem ministre de commerce tous les jours ñu yokk def ay barème teg nii teg nii teg nii soo laajee waa assise boo leen wooyee fii li ñuy daj ndax ñoom ñooy importé ndax organisation l'association des commerçants waaw ñooñu ñooy xale yi importé ñoo toll mais ñenn ñi daanañ ko def mais defatuñ ko màggat nañ mais nanguwuñoo bàyyi nanguwuñoo trouver solution loolu nag ci li ma gën a métti loo tax ma ne jaar na ma bàyyi li may def lépp ànd kook nit ñi xeex loolu ndax ak jaamu yàlla la mu ëpp doole institution yi ñuy wax naan nañ ko xeex lii xeex lii li yàq économie bi te tànk jógu fi économie bi mënul baax